ci loo ne. ñu ngi nag affaire yi mais dawlu di leen. baal leen ñu wax. baal leen la yàlla yàlla boole baal. waaw ñu fekk ay déwén yu bëri. na waaye mbëri moom yaakaar naa li ñu amoon ak askan wi moom kenn amul ko moo tax comme que dañu jógee ci koor bon dañuy profité ci bi rek di baalu ñu ak xam nga fu ñu suñu ay sope nekk ak suñu ay supporters rek lu mu sori sori rek nee na la jàppal loxo na la baal ñu ak parce que nag làmb nag dafa sport bu métti la. ku ci nekk rek am nga mbooloo mu topp sa ginnaaw te am na ñoo xam bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñu te nag bon àq la bëgg-bëgg la ñi ay mbokk lañ ñi ay xarit lañ ñi ay am di jàmm lañ moo tax euh, dañu profité ci occasion yi rek di baalu Sénégal yëpp ax ñi nga xam ne yàgg nañ ñu jàppale te ba ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu di profité ci occasion bi tamit di ñaanal Sénégal jàmm xam nga parce que nag koor gi ah, wax dëgg yàlla ci biir koor gi xel xawoon naa tey waaw yaakaar nañ ñu woon lu bari yaakaar nañu Sénégal du ñu woon jàmm mais nag yàlla li gën rek lay def dañuy wax ni daal dëkk moom bu fa yërmande jiitoo ñu doxal ñu doxal yërmande ci fànn yëpp ak yar ak teggin yàlla xam ne ni dëkk dëkk ba mën na ñoŋ ak ku mën a nekk ëllëg ak xeetu xeetu kilifa bu ñu mën a am yàlla xam ne bu ñu conscient suñu biir doxal yërmande suñu biir yërmante di jégalante yàlla xam na ni de dëkk bi fi ñu bëgg mu yegg dina fa yegg parce que ñi nekk ci circulation bi ñoo nekk ci biir kër yi ñi nekk fii tey ci làmb ji yàlla xam ni de ñooy nekk ci biir kër yi ñoo jógee ci biir kër yi ñëw fii ah boo xoolee léegi circulation circulation bi da ngay ci yàlla bërki rek dama dem seeti hôpital CDO su ma benn xarit boo xam ne ah, scooter la yoroon médecin major bi di ma expliqué di ma wax Euh, euh, euh, deux roues yi njàqare bi nga xam ne ñu ngi koy subir ci société bi nga xam ne tey tey am na benn côté boo xam ne xale yu bari ñu ngi ciy gis seen bopp mooy ñuy def càq-càq ñu ngi ciy seen bopp parce que tamit bon boo xoolee tamit situation dëkk bi dafa métti ku ci nekk yaa ngi ut loo yóbbu sa njaboot xooloo sax sa avenir mais yaa ngi xool li nga xam ne tey wala yàlla mayee soxna loo ko jox dépense loolu nag bu ko xale yi demee bu utal ko seen bopp état daf ko war a accompagner ko war accompagner organiser ko def ay plateforme comme li mu defee ay yangoog yooyu yooyu pour ñu xam kii ak kan moo war a doon scooter ak yan formalité nga war a am pour def càq-càq mais bu ñu bàyyi affaire yi sa bopp affaire yi mel ni mbàccum gerte kenn xàmmewul kii ak kii ak kii xam na ni moyen de transport la am na ba ci biir askan wi sax dimbale nu askan wi. ñun ñu ngi ci gis seen bopp ñun ñu ngi ci gis suñu bopp parce que parfois da nga am ay soxla da nga am ay soxla pour ay waxtu pour nga jot ci mais tey da ngay woo benn cag-cag jox ko cinq missions mu doxal la ko indil la ko ñun ñu ci gis suñu bopp xale yi ñu ngi ci gis seen bopp mais état dafa war a suivre état dafa war a accompagner parce que état créé wul loolu état créé wul wul système de cag-cag xale yi ñoo ko mos muy neex ñu ci seen bopp ñëpp sa mbokk loo ci mais nag da nga war a organiser def ko plateforme créé ko ku nekk ak fa nga dëkk ñu am ay gilet ñu organiser ko état mën na loolu. parce que tamit li tax état war ko organiser bu ko organiser wul day indi ay jafe-jafe day indi ay problème parce que da ngay gis koo xam ne ba mu juddoo ba léegi mosul sax dawal vélo mënul sax dawal vélo nga jékki-jékki bëgg a jàppale sa benn xale jox ko cag-cag falal vélo sax ko dawal loolooy indi eh, jëyi yëg si mbedd mi ba pare nañuy yërëmande suñu biir parce que cag-cag taxé ko doole taxi ñaga jaay ko bu doole ñaga njaay camion citerne ñoo ko ba doole ak ñi nañu yéen nañu yërëmande ci tali bi parce que parfois da ngay gis accident yoo xam ne barki Cheikhou Tidiane ki ko def billahi tayef la ñàkk yërëmande moo tax mu bëgg borom extiteur bi te loolu te loolu jagalul dëkk doxalul dëkk nañuy yërëmante di dawal yërëmande yërëmande bi yërëmande bi nekk ci tali bi moo war a nekk ci fépp parce que tamit tali bi ku ci nekk ax na nga toll parce que parfois da ngay ay accident yoo xam ne barki Cheikhou Tidiane ka ko def billahi lazi la ilaha illa tayef la moo ko tey da ngay gis xale boo xam ne solu casque di daw billahi oto tamponé ko def ko exprès dañuy doxal yërmande ci suñu biir parce que tey tali bi dañu ëppante doole ku ci nekk am na ku la mën a nappaaje loolu nag dëkk fekk organisé wu noonu di yërmande suñu biir billahi wallahi xéewal dina fi yëg a wàcc encore une fois message la bu mu ko mu ko joon a ñëw yaakaar ne bi mooy première sortie am arène nationale tey noo ko gisee. rakk la rakk la cat moo ko topp rek mais fi ñu doon dégg ay Boy Niang ay Siteu lañ ko doon dégg cat moo ko topp ci blessure bu mu am au niveau genou ci ay articulation euh, ligament croisé mu nekk lu sérieux mu koy du négligence mën naa ko tuddee négligence mën naa ko tuddee woyofal blessure bi parce que ligament croisé. jiitu waa gan benn tànk ngay bëree benn tànk bi lu muy mën a supporter beneen tànk du ko mën a supporter charge benn tànk bi di teg nga koy attan ñu lay teg squat de 200 kilos bene tànk bi du ko mën a kon boo ko fajul bu mu wér jiitu waa gan handicap lay doon boo xoolee combat yi mu perte combat yi mu perte yëpp loolu moo ko perte loo combat bi parce que c'est une boo xam ne moom moom la force am ça arrive ay ligament ligament moo téye genou soo ko fajul bu mu wér jiitu waa gan yaa ngi bëri mais handicap ngay bëri xam nga combat yu bari yu mu perte tey ba def recul ci bi làmb ji euh, blessure boobu moo ko indi mais nag am na ay def na ay entraînement yoo xam ne permettre na ko tey en toute sincérité yàlla dimbal ko ci combat mais tey xale la woon boo xam ne tey wax dëgg yàlla ñëpp gis ko allure bi mu amoon ak vitesse mu demoon on parlait de Lagrose Boy Niang à l'époque on parlait de Lagrose Siteu Ama Baldé tey ñoom fi tey Lagrose heure bi na ko fekk mais ndog-ndog la te ndog-ndog boobu yàlla nekk njiglaayam tey ñi am yaakaar ci moom lool ci combat bi nga xam ne un jeune engagé dynamique am rigueur am fukk lay bëreel kon expérience war a bëri ci combat bi ak ak banditisme parce am na combat yoo xam ne affaire bandi moo ko moo la ko ay négociation. ji ñu ak ci koor bi gëj nañ la gis ñoo ngi lay baaloo ak bu baax a baax ni ngeen defee en masse. yéen waa loolu moo jaadu rek nit ki moom li nga li nga li nga li nga li nga leble rek la lay fay parce que Fass écurie la ñun ñëw bokkuñu ay jiko ku ci nekk dafa am foo dëkk ñëw ñun nag defuñu lu li ñuy def nii tey biñ ci tolloo biñ ci tolloo loolu lañ doon bëgg suñu ay mag doon ñu ko defal parce que mbër mu ndaw saa yu amee combat day mbër mu mag wala leader am ñëw teew parce que dana am lu muy def ci moom. dana ko galvaniser dana ko may doole parce que loolu moo jaaru ñun dañoo njaboote te yàlla xam ne ne biñ ci tolloo fii Lac Rose toll daan nañ bëgg Tapha Gueye doon ñu ko defal daan nañ bëgg Zallo doon ñu ko defal daan nañ bëgg Rock Mbalax daan na ko bëgg defal daan nañ bëgg suñu papa Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla yërëm doon ñu ko defal kon ñoom foofu lañ toll moo tax tey yitte bu ñu mënti am danañ ko bàyyi pour ñëw taxaw leen loolu mooy suñu jaar lu ñu yàlla may na ñu jël bu ñu sañoon nag tey yàlla may ñoon daf ñu seet tey gis nga état wu ñaari gis nga Lac Rose gis nga ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla may ndam ci barke alxuraan jërëjëf incha allah